maanaam épée de Damoclès bi ko nit ñi wax. teg ko ci ndoddal bi ci contrôle judiciaire bi ñu ko teg mu Ousmane Sonko forcément dina doon amul ay tournées au niveau africain. oui il avait prévu de faire des tournées euh, euh, mm. donc pour mën a def euh, tournée mais même à, au niveau de la diaspora également. Mm. loolu lan di def moom lan la. mais c'est juste contexte bi moo ko laaj Afrique dafa toll ci nouvelle ère politique. sànq dafa mel finalement ci mois de mars mi génn ak coow li daf ko. waaw parce que. daf ko gën daf ko gën no non même avant le mois de mars. discours am ñu ñu ñu suivre la presse internationale africaine. léegi sax il pris en référence. soo xoolee si congrès le parti progressiste de Laurent Gbagbo bu mu ko doon lancé il deux mois ma ñëpp gis neen si discours ak allocution yi le président Ousmane Sonko pris comme référence. par rapport à son discours ak projet bi ma am pour le panafricanisme africain et je pense que loolu événement massif peut-être jeunesse mais avant loolu donc les peuples africains. ma su ma jëlee si l'exemple des jeunes. Hmm. maa ngi waxtaan ak ay jeunes ouest africains donc ñëpp ni ay discours bi ak tamit euh, combat bi. d'accord ñu jeexalee que Dakar wax naa ko sànq rétropédalage bu bu bu bu Barthélémy Diaz vous arrivez à comprendre sa non du rétropédalage ah je pense sama dernière émission fii maa maa ngi waxtaan nañ si donc euh, joxewoon naa suñu position et je pense que euh, tey munoo munoo nekk maire d'une capital te munoo euh, collaborer avec l'état du Sénégal. état nag le contraire nag lan la. état nag dafa laaj xam nga tey PCP municipal. <laughs> Eh. wala wala recevoir c'est l'état. oui wala préfet le mais yow xam nga yow li ñuy wax lan la. xam nga ku ñuy waxal bu ñu ne état. non mais ki ko symboliser kiy tax ñuy wax suñuy wax adversité politique ci fiñ ci toll. xam nga du ay percept euh, percepteur. le président de la République Macky Sall ah oui ah la République Macky Sall c' est l' état du Sénégal. Oui. c' est la constitution. Oui. on ne peut maire d'une capitale. doo collaborer avec l' kon dafa juum kon dafa juum na ci décision. non du question du juum. lan la si logique la nekkoon rek. logique la peut être hmm. moom personnellement euh, bu mu ko doon wax. ak peut-être personnellement relation bu mu sekk ak Macky simplement parce que lu mu doon waxee c'est pas des discours man lu mu gëm laay wax keroog ku xool réaction am Macky Sall tudd tudd tudd président Macky Sall. dafa ne. du ma toog ak Macky Sall du parce que xam nañ ne du Macky Sall. parce parce que acte yi par rapport a à la démocratie ak même ses adversaires politiques mooy ko mu toog ak moom mais tey euh, bi mu doon wax il parle de l'État en tant qu'institution. en tant que maire de Dakar éventuellement mhm. on le souhaite ak avec l'État Sénégal parce que tey Dakar su rafetee euh, Dakar su amee développement mais c'est l'État qui gagne d'accord noonu lañ ko jàppee amul amul amul amul erreur de communication je pense pas amul rétropédalage je pense pa d'accord jàpp naa ne on a fait le tour de l'actualité euh, ban message nga bëgg a bàyyi parce que li des ci élection yi bëreetul euh, du ñàkk xëy na def nañ un peu campagne beeg violence bi ñuy njortoon te yàlla def na xëy na demewut noonu quel est le waaw message bi may wax rek mooy euh, c'est le Sénégal qui va gagner. donc c'est vrai qu'on est des acteurs politiques ci campagne électorale lañ nekk euh, que le meilleur gagne. heure jongante su jotee ku nekk day génn say armes mais na na nekk su des base d'un programme et d'un projet par rapport à sa communauté suñ su jugee nag képp ku yàlla def affaire mm. jaar yoon mm. euh, yàlla def ga gagné. lan mooy affaire jaar yoon. non parce que. jusqu'ici dafa jaar yoon. ni ngi ni ni ngi si jàmm dégg naa dem si presse bi gaa ne tiré nañ bulletin yi ni ngi commencé def la logistique mm. c'est bien mais euh, ne répétons pas li ñu tàmm gis déjà y a des problématiques si rétention carte yi encore mi ngi amaat gis nañ fi si presse bi y a même pas une semaine benn dëkk bu gouverneur bi bañ jël 1500 cartes je crois fait yooyu dafa da nga ko war a dépasser parce que tey yu sew sewaan yooyu rétention carte jéem a ajouter ay carte encore si fichier bi même la question du fichier kenn ñëw si te pourtant waroon nañ am disponibilité jot ngeen ko non jotaguñ ko ba tey. ba léegi jotu leen c'est dommage. donc comme contexte yu mel noonu ak fait yu mel noonu c'est un peu bu fekkee da ne état état état de droit ga bu fekkee da nga naan yow démocratie gee kii en tout cas dis le message. bu may lancé mooy. Mm. Euh, nen dem si campagne bi si jàmm fekk ko jàmm mu jeex ak jàmm. Mm. ki gagné ñu xam ne yàlla parce que je pense que tey fii àdduna bi toll nguur kenn mënut ko xëccoo. gis nañ fi lu nekk hmm. du mës ñëw si ay détails mais li yàlla tudd kenn mënu ko forcer donc soyez humble hmm. soyez un peu euh, raisonnable par rapport ak suñu comportement politique parce que euh, léegi dafa mel ni suñu borom euh, dafay dafay dafay dafay indi ay affaire quoi donc jaru dara dara jaru xëccoo ku xool exemple bi en 2019 covid bi lu mu lëmbee monde bi yëpp nga xam ne tey yàlla rek moo c'est c'est le seul maître du jeu et c'est c'est l'unique hmm. donc soyons toujours euh, courageux. Hmm. def fair play élection yi dem que le meilleur gagne. d'accord ñu ngi lay gërëm ah. sant. mu ngoog Ibrahima euh, euh, Thiam moom la ñu dalaloon seen émission 13 minutes de vérité mooy fàttali moom mooy coordonnateur euh, national de jeunesses patriotiques du Sénégal ñu doon waxtaan ak moom li nga xam te mooy tolluwaayu réew mi ci actualité beeg fi ñu ci toll nii ndax li ci des ci yi ñu yegg ca bëreetul li mbëri yëpp doon bàkku laata làmb ji la. Mhm. léegi nag ñu yegg incha allah ci làmb ji buñ ci génnee aussi dinañ taxaw def taxaw seetlu yu am solo. Euh, ci euh, résultats yi lan la wane ak it lan lay jàngale ci échéance yu ñu jëm parce que wax na ko léegi mois de juin bu ñu ci génnee dañuy dem ci législative yi ginnaaw gi daanaka un an et moo ñu dese pour ñu dugg ci présidentielle bi. lu ko gën a euh, yees te loolu yëpp ay jamonoy élection lay doon. Mm-hmm. ci réew mi ci ay jongante te du deñ diggante opposition ak pouvoir ñu leen di gërëm di leen sant yéen doon topp seen émission 13 euh, minutes de vérité nuyu ñaari patriotes yi nga xamante ni euh, bi Ibrahima see daanaka ci la ñu saafonte ah, benn benn benn patriote bi euh, stagiaire la fii beneen bi yaakaar naa mun ci <laughs> régie bi waaw ñu leen di gërëm di leen sant di nuyu bijou bu baax ak équipe bi nga xamante ni ñooy coordonné émission bi ci ginnaaw sant leen gërëm leen